Euh, njëkkee ko ak ki nga ni mooy Cheikh Aziz Ndiaye Cheikh bi ñu ngi lay nuyu euh, euh, di la di la di la ziar gërëm la ci teewaay bi ñu ngi jëm nag ci gàmm gu mag gu ñuy amal samdi incha allah 12 octobre 2019 ca Médina Gounass Géejawaay en face police Géejawaay ginnaaw bu ñu la bu la ziaree ba noppi ndax mën nga ñëw ak ñun ci solos gàmm gi ngeen di amal le octobre incha allah. alhamdulilah. wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah maulana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam uh, ngi lay ziara di ziara oustaz di ko nuyu ak sunu jigéen yi may fekk fii léegoo ci plateau bi uh, di nuyu waa TFM yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawféex waaw uh, bés bi ñuy def nag mooy at bu jot ñu ngi fiy ñëw léegoo léeg di koy yëgal mbokk jullit ñëpp di wax ne bésu Cheikh Ibrahima ñas la ñu ñi aju ci moom di jàng jàngaleem di ko jàngale at mu jot dañuy def bés boo xamante ne dañ koy tuddee euh, bésu Cheikh Ibrahima Niass te buñ ko waxee nag ku nekk dina dinañu wax ne euh, lu ñu siq ak bàyyi mooy kenn ku nekk lu mu siq ak cheikhul mu rabbiam rawatina sëriñam muy islaamu suufi tamit islaamu suufi nag boo ko déggee mooy islaamu maam limaamu mooy islaamu Cheikh Ahmad Bamba mooy islaamu eh, Haaj Malik mooy islaamu maam El Hadj Abdoulaye ba mu jeex islaam boobu nag mooy islaamu bëgg yonentu yàlla Muhammad teg ko fu ko kenn tegul mm. jël yonent muy modèle di idole mm. ñooñu seen islam boobu nag. si la Sénégal nekk. Hmm. moo tax lu baax loo gis Sénégal rek. Hmm. bañ naan Sénégal réewum teraanga. ci seen islam qualité islam boobu wala modèlu islam boobu. Hmm. ci la Sénégal ay namp ba toll fii tey. kenn ku ci nekk nag am benn mbaar. wala benn kurukaar boo ne. am benn waajoo fa nekkal. ñun nag ñu nekk ak ku ñuy wax Cheikh Ibrahim Niass. macha allah Baye nag euh, xam giñ ko xam ci gàttal. mooy euh, Pape Cheikh léegoo léeg doomu aadama yi dinañ dem ci gisaanekat. ci gàttal gisaanekat bi wax la wax joo xamante ne fileeg fanweeri at nga gis ko ci sa dund. Mm. wax jooju tey muy doom wala liggéey wala sa nekkin ci dund. Mm. ba nga ne ah lii de sëriñ bi waxoon na ma ko lii de sama maam waxoon na ko fekk distance su téeméeri at wala fanweeri at mu am. mu am mm. gisaanekat boobu fu fekkul woon yàlla dogal lool ci azal maanaam bind ko. avant sa juddu gisaanekat du ko mën a gis. Mm-hmm. léegi nag am gi ko yàlla amaloon avant moo tax gisaanekat bi gis ko. Mm-hmm. Cheikh dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne yàlla amoonoon leen seen mbir sa azal am ñu ko yàlla doon woon sax avant juddoom ah. muy dox di dox di dox di dox ba wàcc ci islaamu suufi mm-hmm. xabaar yooyu wàcc ci euh, tariqa ba wàcc tariqa tijaaniya mu bokkoon ci ñu ñu waxoon ne Cheikh Tidiane ne dana ñëw ñëw googu nag am ay référence ak ay ak ay junj yuñ ko junjoon mm-hmm. ñun ñu mujjee ñëw wala ñun ñu ñëw ci diggante bi topp tariqa bi ba gis loolu yàlla boole ñoog Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñu recevoir dégg nga euh, la ko yàlla sédd ci tariqa bi ay ndaw di daje te mbooloo mu daje bu ne dinañ am bés. ñu am bés si suñu daje boobu nag bés boobu mooy tuddee mul fayda ñu ciy gàmmu di ci fàttaliku yonentu yàlla Muhammad di ci jàngale yonentu yàlla Muhammad Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass baaba lamin di ñu ko defal ci Medina Gounass Géejawaay at mu jot. loolu mooy illay jotaay bi. Hmm. te wax naa la daaw ne la gàmm gi dafa am lu am solo lu ci feeñ. Hmm. mooy gàmm gii ñuy def ay xale ñun ñoo ko jiite naam mais ay xale yoo xamante ne baal lañ ko doon def baal. Hmm. suwaare la woon li lay won ne islaamu suufi dafa am solo ñu ne ci ba at ñuy ñëw ci Cheikh Ibrahim di ñëw di ñëw ba mbooloo ma jeex ñu ne dañoo bëgg ñun suñ soirée bii ren ñu dajalewaat suñ xaalis def ko gàmmu. léegi nag loolu mooy origine gàmmu gi. ginnaaw Euh, njàngale Cheikh Ibrahima Niass. daan nga ah. bokk ca baal ba. déet bokkuma ci woon. Ah, waaye nag waaye nag mën naa ne maa leen mag. maa leen njëkk a baal. maa leen njëkk yëngu. jaar jaar waaye ñoom it ba ñëwee. mu tombeek lafa fa Cheikh Ibrahima Niass indi. Mhm. nga xamante ne Baye dafa waxoon ne faydoom bi. Mhm. dafay wëlbati xol yi. Mhm. moo tax teel a dellu am solo. voilà ñuy dem sens inverse. Ah. sens inverse boobu ñuy dem. Mm. moo tax nag. xale yi bañ nekkee ci lii dajeek Maulana Cheikh Ibrahima Niass mu wëlbati leen macha allah comme ni ko Touba di defee ni ko Tivaouane di defee ni ko Yoff Layeen di Ndiassane nga xam ne loolu noonu mm-hmm. mooy islaamu suufi mm-hmm. te suufiyanke li tax mu mën a récupérer nit ñi mooy seexluwul kenn te seexluwul fenn wanul kenn ginnaaw macha allah islam boobu nag yaa ngi wax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi yàlla daf ko wax ne ko bu fekkoon da ngaa xat xol mm. dégg nga ma ne yaataloo ko mm. uufoo nit ñi mm. duma ma ebal nit ñi ñëw ci yow mm-hmm. kon nag boo gisee nit ñi di bëbbandoo di jëm ci léegooleeg Touba léegooleeg fii léegooleeg Tiwaawan léegooleeg Medina Baye mm-hmm. jikkoy ti bi nga xamante ne ñoom porté woon nañ ko mm-hmm. uuf ñëpp ëmb ñëpp comprendre ñëpp. Mhm. looloo tax nit ñi yàlla di ebal waxtu jot mbooloo mi di daw di wuy ci suñ sëriñ si. Mhm. waaye nekkut ne dañoo ëpp nit ñi xel. Mhm. wala dañoo am alal ju ñu jox nit ñi. wala dafa am lu spécial lu nekk si ñoom du dara lu dul jikko yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa eh, sallam te Pape maa ngi lay wax ne képp koo xamante ne muñal nga ko bëgg nga ko mu bàyyil ak boppam. ñoom nag muñal giñ muñal askan wi ak bëgg giñ leen bëgg ak uuf giñ leen uuf ak nekk ci tàngoor ndax ñu ne ci ker nekk ci coono ndax nit ñi am jàmm moo tax nit ñëpp Sénégal bëbbandoo jox seen bopp sëriñ si mm-hmm. te islaamu suuf yi nag maa ngi lay wax Pape Cheikh ñu mm-hmm. la wax ne télé la ñuy waxee mm-hmm. nañ fexe ba ndaw ñëpp ñu porte loolu jege mag ñi ndax li baaxoon démb la ko defaroon mooy defaraat tey te ñëpp jaaxle nañ ci jeunesse bi kon il faut ñu fàttalikuwaat lan moo defaroon mag ñi lool daal mooy sama ouverture donc rendez-vous baa ngoog thème bi au service de baay pour sauver la jeunesse euh, di euh, woote boo xamante ni euh, dinañu ko amal incha allah samedi 12 octobre fële nga xame euh, moo di euh, géejawaay euh, yan kàddu ngay tëjee woote bi waaw li may tëjee mooy sant la rek ak oustaz ak sa jigéen ñi wër la mm. waxtu wu jot am na loo xamante ne yéen a koy waxal sénégalais yi mm. bi may ñëw embouteillage bi yëpp gis nañ ko waaye fekk nañ yéen it ngeen wax ko ah. yéen a ngi yëkkati ay sujet yoo xamante ne ku toog sa kër mm. dafay xaatir ba si yàgg rek ngeen yëkkati ko loolu ñu leen di sant yéen tamit yéen a ngi service su yi yàlla leen yàlla dëgëral li média di jëriñ mooy jàngale l'humanité yàlla bu leen ci kenn ëppale allahuma asalaamu macha allah kontaan nañu lool euh, Cheikh Ndiaye euh, kon teewaayam bi woote la ndax mënul euh, kër gu ne mu dem yóbbu fa carton invitation ku ko dégg rek na nga ko xamee noonu te teel a dem ndaxte 9h lay commencé incha allah affiche baa ngi noonu le 12 octobre bu ñu xëyee nag suba gi ba guddi dañu fas yéene amal programme bu am solo boobule di gàmmu day am chaque année euh, au départ baal la woon euh, waaye léegi baalatuñu euh, dañuy toog di sikkar xale yoo fay ñëw yëpp koo ci gis dina takk kurus dëkke ak salaatul fatiha ñu jàngal leen ay salaatul alan nabeek yu baax yooyu nga xamee ni suñu borom ma ko wàccee muy arange voilà donc ñu ngi gërëm bu baax Cheikh Aziz Ndiaye mi nga xamee ni moo fi teewoon pour wax ñu programme bi jërëjëf Ndiaye kontaan nañu